national El Hadj Ousseynou Diouf premier vice-président AIFS double ballon d'or kii dañ koy dugal muy rax ju baax maa ngi lay bëggee waa di wax ni gis nga c'est joli les légendes du football sénégalais oui. c'est le ballon d'or mais aujourd'hui Sénégal. si ñoom nag la ñu roy si ñoom la ñu roy ndax grand yi bi ñuy joué ñoo ngi xool di leen seetaan et on rêvait de porter le même maillot. si on est la là on est dans le football c'est grâce à di wax ne rek gis nga geste bi sa doomu ndey def muy Elimane Lam tey jii ku waxoon 10 ans ci ni terrain bi meloon ak ni mu mel nii tey jii di mën nañu wax ni euh, acte yu mel nii daal lañ soxla ci suñu suñu Sénégal bi. acte yu mel nii jikko yu mel ni la ñu soxla senegal et comme ni ma koy waxee rek li gën am solo d'abord balaa may gërëm Elimane parce que xam naa Elimane ba muy commencé ma naan moom la woon muy ñëw lance di ma set donc mën naa wax ni euh, li gën am solo moo di suba entretien bi man entretien bi suba bëgg naa bu ma fi dellu see wala ki nga xam ne moo leen defal lii bu fi dellu see tey ji xolam dina dina sedd et merci à Elimane merci aux gars de Liberté 6 aussi qui ont adhéré parce que lii du mën na nekk du moom rek la ay waxtaan yu bëre la la mairie il faut parler aux gens qui habitent ici et tout ça et je crois qu'ils ont adhéré c'est ça qu'il faut retenir et franchement Respect. Mais hélas, la bonne politique euh, euh, de la Fédération sénégalaise de football tey jii nii boo doon wax ci loolu xool te jii nii fan la équipe nationale fu ñu toll te jii nii ci Afrique looy wax tey maître Augustin Senghor. légende. légende est-ce que mos nga ko dugal ay bëri j'attends j'attends qu'il rentre pour me marquer un but. déggu question bi nga ni. waaw comme wax rek la politique. Euh, de la fédération sénégalaise de football ci footballu Sénégal bi tey jii nii mën nañu wax ni macha allah. non mën nañu wax ne la politique la, la la fédération a déjà choisi sa politique. pourquoi parce que on joue partout au football au Sénégal ça c'est des jeunes qui jouent dans ce championnat à chaque fois qu'ils viennent nous aider je dirais que leur politique c'est de jouer au football fépp Sénégal et ñoo koy def et c'est pour ça qu'on est champion d'Afrique partout la fédération moom gàcce nga Euh, le président Augustin ma ngi def lépp lu mu mën et que on doit le féliciter parce que mën nañu wax ne tey jii il peut même demain ou après-demain quitter la fédération tranquillement mais je crois que le Sénégal a besoin de lui c'est le premier vice-président de la CAF et je crois que c'est quelqu'un qui peut encore nous amener de l'avance. émission bi mooy nga xam ni 10 ans maa ngi la koy laaj dama lay booleeg Sénégal Bantamba TV la télévision 100 <laughs> pour cent sport. la première télévision 100 pour cent sport laay wax. man nag maa dul toog. mais bul ma booleeg sénégalais yi loolu man. dama lay booleeg sénégalais yi parce que moo may dawloo. moo may tegal ban. mais maa la ko ji mais dinaa ko def. dinaa ko kon jërëjëf